asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar euh, man la Oumou Wade présidente avec Ngent euh, daje bi li ko waraloon mooy euh, docteur Ndiaye depuis 2012 dañu ànd ak moom ci liggéey ci développement mu ñuy jàppale di ñu wan yoon sampal ñu ay keesu avec dañ daan def bu ñu nattee rek tasaaroo kenn ku ne dem mu ñëw sampal ñu jàngal ñu autonome ak euh, développement ñuy natt di denc euh, di jariñu di ñu defal ay formation ñu nekk ak moom euh, daje bi li ko waraloon nag félicité rek di ko félicité ci nomination bi ko président de la république fal ñun waa Thiès di kontaan ci nomination bi bu baax a baax a baax di ko ñaanal Euh, yan bi oyof ci moom di ko gërëm bu baax di ko sant xam ni lu mu mérité la parce que euh, docteur ku nekk cees rek defal na la teraanga xam nga ni docteur am na njariñ ci dëkk bi waaw mu ngi noonu surtout ñun jigéen ñi yàgg nañu jàppale depuis 2012 ñu nekk ak moom ak euh, Ousmane mi nga xam ni moom la daan yebal ci ñun muy ànd ak ñun ci liggéey bu ñu sumb di ci ànd ak ñun ci développement jigéen ñi loolu moo waraloon ñu daje tey di ko félicité réunion pour waxtaan ñun waa zone nord bi euh, di ko pour félicité ko ci euh, nomination bi di ko ñaanal fi mu bëgg a yegg yàlla na sut euh, njortam kawe njortam loolu moo waraloon daje tey bi di ko ñaax rek yàlla dooleel ko ba lépp lu ñu séentu ci moom rek yàlla suñu borom dooleel ko ba fi mu bëgg jigéen ñi yegg rek yàlla yeggale ñu fa waaw loolu rek laa koy ñaaxee di ko wax ni ko ñun waa Thiès daal ñëpp ñu ngi topp ci ginnaawam waaw ñu ngi ci ginnaawam euh, dinañ ko jàppale ba fi mu bëgg a yegg incha allah ci yan bi yàlla yeggale ko fa. man la Magu Dieng di présidente réseau bi àndoon nag docteur Ndiaye nag depuis 2012 sama ànd ak moom it aw ma ci benn regret ñu ànd di liggéey nag ba nga dara ñaawul. ma koy félicité aussi ci nomination bi ndax keroog ñu ko nominé nominé Thiès gépp a jóg taxaw ñëpp a ànd ak moom ñëpp a ko ko yéene lu mu jot foofu rek def dugaloon na ko ci parti bi ñun nag ñu ngi nii réseau des femmes ñu àndoon nag moom wax dëgg yàlla sampal nañu accès taxawal nañu plateforme jox nañu financement lu responsable di di di defal jigéenam rek docteur defal nañu ko ci bi ñu àndee bi ñu àndee ba tey tamit yokkiwul xëy na nag boo jëlee ci sa poste day metti mais tey bu yàlla dogalee mu am ministère bu ñu ko jox mu yaatu lool am opportunité yu nekk ñun jigéen ñi tamit ñu ngi ciy ñaan yàlla may ko ci ndam yàlla oyofal yan bi ci kawam te amuñu ci benn regret ndax defe naa ni ku la jox ndekki bu la liggéey reer war nga koo gëm ba ñu àndee yàgg na kon yaakaar naa ni lii buñ ko yaatalee bu yàqu du yàqoo ci docteur kon ci ñun jigéen ñi lay yàqoo tey defe naa ni nuñ ko téye woon depuis 2012 ñu dem a dem a dem ba ba ay mat ay quelques ñu ne duñu bàyyi duñu yokki nañ ko continuer buñ ko continuer rek léppay baax ndax Ousmane dem bi may woo dama ko ne suba sax dañu am daje foofu chaque le fii la ñuy daje kon lam fi taxawaloon ba tey fayut ñu ngi ànd ak moom daal man defe naa su ma taxawee di wax ci docteur ku ma gis dooni lii mënoon naa ñàkk man mën na maa wax ci moom de près et de loin Ousmane mii la même chose ndax ñoo daan ànd guddi ak bëccëg ak docteur ñu ànd àndin bu rafet ba tey yàlla dogal lii muy méritam ñu ciy félicité président bu baax a baax su ko neexoon jox ko keneen mais nag fooy foo xaarul dara dara loo fekk docteur da ko fa xaar da ko faa liggéey liggéey ko ci jigéen ñi lépp lu responsable di defal jigéen docteur Ndiaye defal na ko jigéen ñu ànd ak moom plateforme la ñu ubbiloon ñu ciy liggéey di ci gis suñu bopp mu samp avec ñu ciy liggéey fond ji ñëw mu def financement ñu ciy gis suñu bopp kon yaakaar naa ne lépp mën naa baax incha allah di sant Ousmane di ko gërëm parce que ba ko docteur woowee ni ko jigéeni zone nord mënoon na seet ñu ko neex mu woo leen mais dafa seet ñu fi nekkoon démb ak bërki démb mu leen kaay taxaw lii suñu ndam la ñun ñëpp ñu ànd ci ndam li nag di ko feetu di ci sant yàlla yàlla na ak yéen bi oyof ci kawam non non bokkuñu ñun suñu réseau suñu réseau ba nu ñu àndee woon ak moom àndoon na na moom ci politique àndoon na moom ci développement ba li fekk si ñu nañoo moom ba fu ñu dem ñu naw ñu fu ñu dem ñu ne waa kër docteur Ndiaye nga ne ñu ànd ak ci moom développement ba fu ñu dem ñu naw ñu man ba tey maa ngi kon ne sama développement te grâce à lui. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ku ci nekk sa tuur ak sa sant euh, di dellu di santaat yàlla. Euh, di sant yàlla di julli ci yonent bi Mohamed Salah sallallahu alayhi wasallam sallam euh, di am tey bisu tey damay wax ni bisu mbégte la euh, a non par là li ñuy njëkk a def remercier son excellence le président Macky Sall ci confiance bi mu renouveler à l'encontre de docteur Pape Amadou ndax docteur Pape Amadou Ndiaye ñu bëri bu ñuy wax dafay mel ni dafay doog am nomination alors que ce n'est pas le cas depuis 2013 mu ngi président conseil d'administration, FONGIP a dit que ñu ils ont bénéficié des financements ci banque dooleel jigéen ils ont bénéficié des financements ci dooley docteur Pape Amadou en personne man je suis témoin parce que man ak ñoom magou, ak ñoom Umu ñoo ci doon liggéey kon tey bu demee ba président renouveler confiance am jox ko ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel du ñu def lu dul rafetlu ko di ci kontaan di ci bég ndax euh, docteur ku ko mérité la ndax ñëpp xam nañ ni amuloon euh, xaar ma yàlla ci liggéey amuloon xaar ma yàlla ci dooleel jigéen amuloon xaar ma yàlla ci social foo ko fekk il s'investissait daanaka zone nord bi amul benn semaine boo xamante ni dina jot te du wàcc sur le terrain ñëw nemmee ko ay jigéenam saafonte ak ñoom ñii comme ni nga dit, la euh, euh, euh, réponse bi yor man je suis témoin que ni depuis 2012 ñu ngi auprès de docteur Ndiaye di liggéey ndax sàkk le 6 dañ doon daje fi def des réunions mensuelles donc kon vous l'avez amee ñoom seen bopp ñoom ñoo ma il faut ñu remercier son excellence le président Macky Sall ci nomination ak confiance bi nga xamanteni porté nako à l'encontre de notre responsable le docteur Pape Amadou Ndiaye encore félicité waat Pape Amadou Ndiaye wax ko niko choono du réer ndax ñepp xam nañ Euh, ni coono ak effort bi nga xamante ni mu ngi ko doon daj sur le terrain donc lii tamit man félicitation bi dama koy retourner encore ci famille di leen wax ni leen ba ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen donc maa ngi leen félicité féliciter ndaxte nag amaana heure bii lii mënoon na am du leen fi fekk mais boobu ba léegi yéen a ngi jàpp tëw bàyyi te docteur comme ni mu ko waxee je crois que ni ku ko xam xam ko ci daana wax ni nit mën na maa ëpp xaalis ndax yàllaay maye ah. nit mën na maa gën a rafet ndax yàllaay joxe taar waaye kenn du ma gën a gore donc loolu mu ko daan wax te ba léegi mu koy dëggal te loolu wax na ko jigéen ñi incha allah fépp foo xamante ni euh, mën na leen faa taxawu je crois que ni koo xam da da daan taxawu ci doolee boppam bu demee ba nga xamante ni euh, dooleel nañ ko dina la gën a taxawu am na wax yoo xamante ni jub nañ fi pour décrit euh, yàq deram am na yoo xamante ni am na fi waaye docteur reste lui-même waa cees xam nañ ko xam nañ ne koo xamante ni da nga daan jël sa doolee di ko joxe da nga daan président conseil d'administration fongible def nga ay année te toujours ngay crédible toujours ngay am fulla toujours la nga wara a def nga koy def do yak do ki ndax docteur c'est un patriote def na rewmi mo nek ci kanam te xamna likoy xaar ci rewmi mi te rôle bi muy jouer tamit xamna ko donc ñu ngi remercier ñëpp di sant ñëpp te di wax ni nag président waxee non la ko waxaté liggéey bi du xaar on va descendre sur le terrain on va mener des activités de développement et de politique afin de rendre la monnaie à son excellence le président Macky Sall